Vas-y, présentez-vous. Bonjour, c'est Agnès Gomis, j'ai 23 ans, je suis en licence. Euh, bah. présentez-vous. Bonjour, c'est Agnès Gomis, je suis euh, stagiaire à AgroSyn. AgroSyn est une entreprise sénégalaise qui évolue dans le secteur agricole. AgroSyn propose différents services, notamment la vente de produits horticoles, c'est-à-dire les légumes maraîchers, aussi la consultance, l'investissement participatif et la formation. En ce qui concerne euh, l'investissement participatif, cela coïncide à ce que les investisseurs investissent l'argent euh, pour ensuite, euh, après la récolte et la vente des produits, qu'on les rembourse leur argent, plus le taux d'intérêt aussi qu'ils auront. le management et le suivi agricole, c'est pour plus les, agriculteurs qui, qui veulent faire investissent dans le secteur agricole et qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Euh, la consultance euh, revient euh, si jours. c'est bon. Après, ça a été Gomis, ak aussi laay entreprise agricole qui a été créée en 2020 par des jeunes. Euh, ak aussi différents services, notamment vente produits horticoles, les légumes maraîchers et tout. Des wàllu des des ci li yëngum ci wàllu consultance li yëngum ci wàllu management et suivi agricole mhm. li yëngu tamit ci wàllu formation en ce qui concerne euh, vente produits horticoles yi yooyu vente légumes yi la mooy ay aubergine ay haricots ça dépend euh, investissement participatif bi euh, ça se fait Nous, ñu koy nu ko mën a expliquer mooy tey jii nga nekk jeune nga yor xaalis nga bëgg a dugal sa xaalis ci bay bi mën nañ la may expérience kii occasion boobu noonu nga def ko pour ensuite ñu am si intérêt si euh, consultance mooy ñoo xamante ne dañu bëgg ñu dañu am ay tool ba pare ñu bëgg ñu expliquer leen nan la naka la pour seen tool baax management bi tamit ak suivi agricole bi mooy ñu yor tool ba pare parce que ñu bëgg ñu ñu manager leen euh, ñu jàppale leen tamit formation bi mooy tey di nga xamuñu dara ci wàllu mbay bi tamit ñu ba ñu am ay kii ñu am yoon pour mën a continuer si mbay bi fan la nekk Agostine Agostine euh, bureau administratif bi mooy VDN euh, euh, exploitation Malicounda la nekk Arof ku bëgg a dem ak ban kii nga mën a joxe adresse bi numéro téléphone adresse baa ngi nii mun nga mun mun nañ la jox adresse mail bi moo nekk nii si bi ci kaki mën am reprend adresse adresse boo leen bëggee jot mun ngeen jot 77 230 naa ñoo ñëm damay def fan man jëlu ma dara wax sérieux Yeah. não no, no, de imagina. Ehi. Ci stai vedendo bene? Serio? Sì, come eu não ho come l'hai fatto cosa interessa? Chi si vuole ne vuoi? Chi deve interessa un arma? Già pensato. Come pensavo, guarda, sempre bisogno di sempre vuole dal suo ispirazione. mediante información de la a su su